incha allah am la ngir ñu wote loi boo xam ni dafay seppi euh, loxo njabootu njiitu réew mi ci yorinu réew mi noo ko gisee. asalaamaaleykum Babacar nga may ma balaa ma pont euh, ci sa laaj ma nuyu askan wi nga xam ni fu ñu mënti nekk ci senegal jamono jii dañuy teewlu maa ngi leen di nuyu waaye nag maa ngi defal mention spéciale sama mbokk sama waa dëkk muy waa Kébémer. di eh, féliciter encore une fois eh, di eh, féliciter bu baax di encourager seen directeur général ak seen président de directeur général muy Youssou Ndour ndax ku ñu man jàpp naa ne ku ñu war a sorgal ci réew mi la ndax taxawaay bi mu am ci économie réew mi loolu moom moo nekkoon samay kàddu tàmbali dégg naa sa question mais dama jàpp ni assemblée nationale warul nekk millier wu règlement de compte politique. parce que bu ma jàppee di kat Babacar Fall mii nekk na président de la république moo xam am na doom ju tudd Mohamed Fall wala moo xam am na sët bu tudd Mohamed Fall am na jarbaat bu tudd Mohamed Souane ñu ne ko taykat doo mën a nekk ci réew mi dara ndax sa baay Babacar Fall dafa nekk président de la république damaa jàpp ni loolu boddi la tudd te loi boo te loolu constitution réew mi da koy tere. am na loo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee mais assemblée nationale daal man jàpp ma ni milieu la boo xam ne dañ fa war a ñëw di fa def ay règlement politique ku am lu la naqari ci sa coalition wala ci sa parti rek andi ko ca pencum néew ndawum réew mi jàpp naa ne boobu doxalin du moom la ñi nga xam ne ñoo xëyoon voté assemblée nationale bii nga xam ne ñëpp dañu woote woon ni assemblée nationale de rupture la war a doon jàpp naa ne loolu. wañ ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel. Mhm, maanaam daal euh, da nga jàpp ni mi day faj mer quoi moo tax mu def li muy def. waaw xam nga xam nga loolu boo dee acteur politique di liir seen politique bi noonu lay demee ndax yaakaaruma ni tey bu Aminata Touré nekkoon président de l' assemblée nationale proposition de loi boobu dina ko dugal yaakaaruma ko. kon nag jàpp naa ne warul assemblée nationale war nañ mën a régler seen i compte politique ñoom waa bennoo ci beneen anam mais bañ koo indi ci ndawum réew mi mais plus grave que ça constitution bi dafay tere ñu def ay loi discriminatoire te loi boobu buñ ko jàllalee day day day day discriminer ay nit day xàjj ay nit règlement de compte politique nag ci biir assemblée moom PDS waru cee waru cee yedd kenn ndax euh, def ngeen ko ay yoon yoon ba ngeen ba ngeen amee doole jee ngeen amoon bi lay waat di nekkee ci bopp mi am déedéet xam nga xam nga loo gis contexte lay laaj. loo gis contexte lay laaj ñun démocratie ku nekk xam na ni PDS mooy ndayu démocratie ci réew mi la preuve tey boo xoolee ñiy xëccu réew mi yëpp boo ci sebbee ñaar wala ñett wala ñeent ñi ci des ñëpp ci PDS lañ nekk démocratie moom ci PDS la fekk baax ndax buñ nekkul woon ay démocrate le 23 le 23 juin duñ ne bàyyi leen nit ñi ñu ñëw manifester ba ci buntu assemblée nationale kon démocratie jàpp naa ni PDS mooy mooy ndayu. mais mais mais xeexu ngeen ci. Euh, euh, Euh, wàllu woowu ci wàllum poste ak wala lu ni mel euh, jaarale ko ci règlement assemblée nationale bi ngeen fay jëlee euh, daanaka Macky Sall. non xam nga xam nga loolu boobu du ay affaire u règlement de compte ak président Macky Sall. ah lan la kon. dafa nekkoon loo xam ne boo nekkee ci parti nekk discipline de parti ak parti bi am nu muy doxee ah da nga koy da koy taxaw doxalee ko boo ko doxalee. wul Ousmane ku la bàyyi yow tam. parti bi moo moo moo taxaw pour pour doxalinu réew mi ndax parti bi mooy bànqaas bi nga xam ni moom moo tax nga agsi fi nga agsi mais loolu da ngeen ko jaarale ci ab loi règlement intérieur assemblée nationale. waaw mais loi boobu tey boo ko yóbbu constitutionnel da koy nangu ndax loi bi c'est conforme man li may wax ci loi Aminata Touré bi mooy proposition de loi bi man gisaguma ko xamaguma sax li mu bëgg li mu doon mais li ma jàpp mooy loi buy xeej ji. di xool di xeej ay xeet di séddale ay xeet daal baaxul cim réew. waaye itam euh, ñëpp dañ koy ñaawlu euh, implication wu famille implication wu njaboot ci biir euh, gestion état bi. waaw ndax fii la fan lañ ko war a mën a jaarale kon wala ci njiitu réew rek moo war a am xëy na xel bañ a dugal njabootam ci. gestion bi xam nga ni PDS wax ci loolu. waaye ndax ndax nañ fi Laye Wade Karim Wade ndax la tàmbalee Senghor. ak Doudou Wade Senghor Senghor. Hmm. ay doomam a ngi wanti nguur gi. Hmm. Abdou Diouf rakkam bu mu bokk. xëy na frère am kay. waaw sa frère Abdou Diouf rakkam bu mu bokkal ndey ak bàyyi ngoon ci nguur gi loolu ak nguur a ànd xam nga boo dee politique te amoo sa kër fa naka ngay demee ba am réew mi il faut nga am sa kër. waaye yéen tam yéen a yéen a wëlbatiku naan Macky soo Mansour Faye mi ne ci gouvernement beeg ay Aliou Sall ak ñoom seen yenn leen doon yéen a ko doon ŋàññi itam c'est pas cohérent tout ça. non ñun li ñu ñun suñu ligne de politique nous sommes très clairs sur suñu ligne de politique nous nous avons un parti nous te le parti dañ ko créer pour la conquête et la gestion du pouvoir lépp loo xam ne gis nañ ni doxalu doxalin bi jaarul yoon ci réew mi dinañ ko dénoncer du côté de l'opposition comme du côté de du pouvoir looloo tax tey bu ñu nee dañuy indi loi boo xam ne day indi euh, bojjante loolu Babacar man daal je pense que loi boobu a mën na xalaat ci beneen sama collègue la maa ngi koy nuyu au passage mën na xalaat ci beneen anam mais loi boobu daal man jàpp ma ne loi bu war a andi ci pencum loolu na léegi. du ma xam nga xam nga vote bi nag moom. Mm-hmm. Euh, député bu nekk dafa am ci kuréel bu mu sukkandiku muy groupe parlementaire. Mm-hmm. loolu bu groupe parlementaire bi maa ngi nuyu au passage le président de notre groupe parlementaire l'honorable député Mamadou Lamine Thiam suñu groupe parlementaire su boobaa dinañ ci waxtaan. am ci benn position bi nga bokkal Kébémer. waaw Lamine Thiam bokkoo moom sant sax est du gën ay mbokk sax yéen. <laughs> waaw kon euh, nag sama sama nijaay la. Ah. dëgg fa kilifa ci wàllu politique sama kilifa ci biir kër gi waaye nag damaa am nekk ci terrain bi di xeex de. Hmm. bu ci kër gi rek ne Lamine sama nijaay tëdd di nelaw yaakaar léegi PDS tam am na loo xam ne xëy na dina jaar assemblée nationale te soxal leen soxal Karim Wade mooy li Macky Sall bëgg ministre de la justice gaaw ci taxaw ñu yóbbu ab euh, loi ci assemblée boo xam ni day baal. ay nit yoo xam ni euh, li leen tribunal teg tax na mënatuñoo bokk ci ay wote wala doon ay candidat eh, ñu bëri xalaat Karim xalifa ak Khalifa Sall eh, ba yëfee jibee rek ngeen ni bëggu leen ay amnistie ak ñoom seen da bëgg ñu àttewaat Karim Wade àtte bu gën a jaar yoon ndax da jàpp ni dañoo salfaañe ay sañ-sañam ak àqam ca bañ koy njëkk a àtte eh, foofu ngeen taxaw ba léegi wala seetaan ngeen ko. foofu lañ taxaw xam nga pour ñu indi pour ñu layal suñu taxawin bi il faut ñu indi commencement wu procédure affaire Karim xam nga Karim Wade tey bu fekkoon ne IGE wala corps de contrôle yi IGE wala cour des comptes wala yeneen corps de contrôle yi nga xam ni ñoom ñoo yor bànqaasu réew mi ñoo ko épinglé su boobaa kat dinañ ne ah Karim mi kat kon dañ ko jiiñ ndax contrôle yi dañoo ñëw contrôler ko ni ko lii yaa ko def mais li ñuy fàttali sénégalais yi mooy. ku euh, corps de contrôle yëpp dañ ko jox kitis corps de contrôle yëpp dañ ko ne ay la yéwén kat nguur si ni nga gérer yëfu réew mi jaar na yoon léegi nag comme dañoo dem jëli cour d' exception pour condamner ko ah dañuy jëliwaat nag ay mesures d' pour réviser procès bi ñun li ñu demandé mooy loolu rek te boo xoolee procès Karim Wade mais yan ñooy élément nouveau yi war a euh, tax ba ñu Euh, dem ci ab révision procès. non non seen gis-gis xam nga professeur Ismaïla Fall dégg naa muy wax waxu ay il faut ay éléments nouveaux ak yooyu ñun nekkuñu ci loolu ñun depuis commencement ba ba léegi ñu ngi naan procès bi jaarul yoon et au delà de procès bi dañoo ne cour bi ko àttee. moo jaarul yoon ndax cour bi ko àtte mooy ñu ne la kat yow ah, déete yow yaa moom RFM yaa moom nangam yaa moom nangam yaa moom nangam am nga fanweeri fan pour wone ni moomoo ko wala ñu tëj la xam nga loolu kenn mucc. kenn kenn kenn mënu cee mucc kon cours boobu jaarul yoon léegi nag professeur Fall dégg nañ ko muy wax ay waxu euh, il faut mu am ay éléments nouveaux mais élément nouveau bari na ci dossier bi xoolal à part Sénégal à part justice au Sénégal fépp fu Karim Wade dem ak état du Sénégal ci àdduna bi daan nañ ko ba ci Nations Unies mais loolu kay ay ay ay kon am nañu ay éléments nouveaux ñun li ñu laaj bariwul dañoo laaj ni Karim Wade jàpp nañ ni àqam ak yelleefam mate wuñ ko ci procès te cour bi ko àtte du kuur boo xam ni war na ko mën a àtte ndax liñ koy jiiñ mooy alal ju setul te loolu. ba léegi mbaa bu sax nguur gi daa d'accord doon àttewaat ko moom bay du woy mbuus bu dee 2024 de may ragal. bu nu tàmbalee woon àttewaat mu yéexi yéexin woo xam ne du du bokk 2024. non mën naa bañ a àgg foofu mën nañoo dem directement cour suprême mën nañoo dem directement cour suprême. loolu du àttewaat te te te loolu du àttewaat te si xam nga su boobaa bu ñu annulé procédure bi rek ñun li ñuy demandé mooy ñu seetal suñu. suñu candidat wane ni kat ay la yéwén dañ ko tooñ ay la yéwén dañoo dem jëli loo xam ni mënuñu ci woon a bañ jëli pour banque loxo Sénégal yépp xam nga nit ñi dañ doon wax ni way jàpp Karim Wade euh, demande sociale tey boo xoolee àdduna bi yëpp Sénégal yëpp ñu ngi naan leeral Karim Wade seetal Karim Wade demande sociale la. ah Sénégalais de xam nga ñoom. loolu loolu dañuy dañuy xëy weex ngoon ñu ñuul. loolu benn benn. mais mais mais mais nag euh, euh, xam naa ni ñu bëri jàpp nañ ni da ngeen di pëndal rek naan dañoo bëgguñu àttewaat waaye amnistie moom bu amee ngeen jël am déet bu yéen bu ñëwee ci. bu loi bi ñëwoon ci assemblée yéen député wallu PDS du ngeen ko voté. xam nga wallu dafa am ay coalition la dafa am parti PDS am ay yeneen parti maa ngi nuyu le président Mamadou Lamine Diallo nga xam ne allié la si suñu coalition waaye ñun waa PDS. ba Karim sax bañ na ko nag ba ba muy wax député PDS yi la waxal nee na na député PDS solidaire ci position bi mu taxaw su boobaa loolu day firndeel ni ñun député PDS yi dañuy dañuy taxaw solidaire ak suñu candidat ndax nag. loolu mooy li war a am li war a am mooy ëllëg si biir parce que ñun dañu am président de la république ñun bu 2024 ala kulli xaal dañuy am président de la république léegi nag du ñu am président de la république ñi nga xam ni maanaam seen i gémmiñ dañuy nàcc te te du ñu wax jàmm nekk fi naan ko jox ñu suñu xaalis ak nangam nangam bala ñoo àgg ci loolu dañoo bëgg ñu setal ko ba mu set wecc ñoom ñi ko taqaloon te taqul nañ ko setal ba mu set wecc ñu jàkkaarloo gaañ di jël réew mi 2024. parce que mais mais mais mais Karim Wade bu demee bay naan ni. Euh, Euh, bu jaaree ci amnistie day bàyyi PDS bàyyi sax politique. non waxul daf ni. ah daf ni loo loo loolu la ki yor communication. Euh, bi dëggal ci yenn kaay yi. Karim daf ni bu ko député PDS yi. waa partem la waxal te jàpp naa ne am na droit nii waa partem war nañoo mën a solidaire ak moom te dañuy solidaire ak moom incha allah parce que itam moom mooy suñu candidat te moom lañ jàpp ni moom lañ ñun dañu am projet de société suñu projet de société ki ko porté mooy le candidat Karim Wade xam nga Karim depuis 2019 ba léegi gaa ñi nangu wu ñu bëreeg moom ndax xam nañ ni képp ku fi bëreeg moom ci Sénégal mu jo mu yóbbu la ardo. pour mën mais en matière de tuumalaate ak fomp. amnistie dara gënu ko fort bu ñu ne amnistie rek day mel ni mosoo def dara loolu gën a gaaw a. waaw xam nga amnistie du viser nit Babacar amnistie du viser nit amnistie ay fait lay viser wax ji benn la rek xam nañ ko ci ay ay période bien déterminée léegi nag am amnistie boobu est-ce que du dañ ciy dugal Karim est-ce que dañ ciy dugal Khalifa Sall est-ce que dañ ciy làq loo xam ne bu ñu làmbee tuuti daj leneen ni ah lii kat bañ koy wax xalaatuñ ko ci woon. maanaam ci biir njabootu Macky Sall déet man de tudduma président Macky Sall damaa wax rek. sama hmm. sama sama sama xalaat damaa jàpp ni daal ñun li ñu soxal mooy suñu candidat dañoo bëgg ñu réviser procès ba mu leer ni ñi ko daanoon ñoo ko setalaat wecc mu daal di ñëw taxaw. Hmm. léegi bu amnistie bi euh, demee ba jàll assemblée nationale. Hmm. mën na dem sax ba Karim Wade peut-être gedd sax bañ a bokk ci 2024 bu fekkee ne yàlla na te moom la mu bëgg amut. non xam nga Karim moom. question d'honneur. xam nga Karim moom 2024 dina bokk. ala kulli xaal di ala euh, dina bokk su nekkee suñ ko amnistié. loolu foo ko teg dina bokk suñ ko amnistié wul dina bokk ndax fi mu toll nii Karim dafa mën a nekk candidat xam nga CREI bi procureur bi bi muy demandé sentence su condamnation de Karim Wade dafa demandé woon ñu yàq ay ay droits civiques am et bi suivre ko yéen a ngi fàttaliku ministre de des forces armées moo nekkoon ministre de la justice ci jamono yooyu. moom moo taxaw ni ah ay la yéwénkat cour bi suivre procureur bi ci demande pour ñu yàq ay ay droit civique am ak politique. kon mais ñoom dañoo sukkandiku ci ab article bi nekk ci code électoral. waaw loolu aussi. Euh, waaw loolu loolu euh, loolu article boobu am na mais dure bi. dañoo ne bu ñu la condamné pendant cinq ans Karim bañ ko soog condamné léegi cinq ans yi mat na Karim moom ala kulli xaal candidat la. ala kulli xaal dina nekk président de la vingt 2024 parce que ñun dañoo am projet de société boo xam ni dañu koo dox dañ ko dox de du du projet de société bu ñuy wax nii de xoolal Kébémer man mii di jàkkaarloo ak yow ñan laa fa jàkkaarloo loon ay DG ay ministre ay DG ak ay ministre ak 17 maire yoo xam ni ca beneen boot côté ba lañ bokk mais ñoom ñëpp loo ci gis yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf parce que dañoo am suñu projet de société boo xam ne dañ ko dañ ko togg te ki ko porté mooy le candidat Karim Wade bien vrai que nekkul Sénégal mais moo fi gën a jege ndax lu xew Sénégal. ak jamono bu mu xewee xam na ko te mi ngi koy suivre xam na jafeñ jafe yi sénégalais yi nekk yépp xam na itam li sénégalais yi di xaar te jàpp nañ ni moom mooy alternative bi crédible pour Sénégal tey. Ah, loolu moom politique la euh, léegi. li mu seetaan xool fu muy mujje Macky mi ñu ni moom it euh, li sax mu tax mu yëkkati amnistie gi daa bëgg a gën a tasaare opposition bi xàll yoonam wutaat ñetti ñetteelu mandat ñu ngi lii ci yéen kaay tey ne ku ci mel ni Cheikh Kanté euh, te jege ko lool mu ngay nas programme nasi pexe pour Macky am troisième mandat euh, loolu noo ko gisee. waa xam nga am nga am nga ñun ñun PDS ñun dañoo gëm ni ax ku mënti nekk président ñun dañ lay daan déjà ñun loolu gëm. ñun dañoo gëm ni muy Macky Sall yoo muy keneen ku nekk candidat 2024 ñun dañuy gagné ñun loolu lañ gëm. vous n'êtes pas à l'aise ci ci bi pourquoi nous ginnaaw ginnaaw yóotu woon ngeen ko. yéen ak Laye Wade 2012 pourquoi nous ne pas à sur ça. xam nga mm-hmm. xam nga président Macky Sall dafa wax. waxati waxati boobu léegi kenn déggu ko muy. waxaat góor gi waxoon waxeet. waaw góor gi ah. waxoon waxeet te góor gi waxeetul dafa ni. bu la neexee ngeen ni leen moo waxoon wax waaye xam nga loolu la ca topp mooy ba ñibbisee sénégalais gi yëpp dañoo mànkoo ni ñun kat ay la yéwén weccu nañu tey jàpp naa ne bu ñu mënoon a dellu 2012 góor gi waxuma la yokkal ko yeneen. cinq ans mais dañ naan ko danga nga nekk rek ba heure boo noppee heure boo paree rek jox ñu yëf yi. da parce que ñun di gëm nañ ni li xew ci réew mi ba ci projet yi nga xam ne président mag Sall déroulé na ko yow Babacar xam nga ni fii ak dix ans defar fi projet. dem outil financement dem def étude de projet yi génne financement lancer travaux yi xaju fi xam nga ni lii yëpp continuité wu góor gi dolli ma bi te dañ ko ci dañ ko ciy gërëm di ko ci. ci ban anam ndax xam nañu ci ban anam mooy infrastructure yi. yan précisément. infrastructure yi nga gis ci Sénégal gi yëpp autoroute à péage aéroport jas terre beeg yëpp li nga gis nii ay programme yu ñu fi sëlee ba tëkk teg la. Hmm, président Laye Wade tamit yeggale na ay programme yoo xam ne waa PS ñoo ko nasoon xam nga tam loolu. déedéet déedéet Babacar. Ah, ah, Babacar eh. Babacar yaa ngi fi woon ba ñuy wax waxu waxu autoroute à péage Karim Tanor Dieng ndeysaan dem si yàlla éléphant blanc la yàlla na ko yàlla yërëm fu mu tëdd daf ñu woon éléphant blanc la xam nga tey bu ñu amee ay infrastructure de dernière génération am ay rapport am xam nga da ngay politique rek parce que yow li ngay wax ni xam nga yow des impôts et domaines nga xam nga xam nga bu baax état da ngay bàyyi politique bi nag taxal Babacar Babacar man agent wu impôt laa wax waaw d'accord waxu impôt bi waxuma ko man agent wu impôt loolu indi ma fi tey li ma fi indi tey mooy waxu mais buñ dee wax ci axlaayu taala état xam nga ni wàllu programme moom da dem ba fi rek. waaw d'accord mais boo fi demee ba ko fi dama ni defar fi programme def étude de programme dem uti financement moo fi xajul ci dix ans da nga ko fee fekk na ko fee fekk ñu tëral lépp teg ko fi nga daal di ñëw commencé. déroulé kon kon dix ans Ablaye Wade kon fu fu mu jaar bu euh, gi góor bokk ci yow. <laughs> Ablaye Wade visionnaire la Ablaye visionnaire la xoolu autoroute bi fi mu ko génnee. Abdoulaye moom mun mun mënut a bokk kenn parce que Abdoulaye xoolal dañuy xam nga nit ñi dañuy suivre Abdoulaye Wade te suivre suivre ñu ko Abdoulaye avant muy accéder au pouvoir réew yi ñu wër yëpp ku ci am problème mu économique yi moom nga daan sikkandiku xoolal livre yi mu bind yëpp ci ci les destins de l'Afrique xoolal yooyu kon kooku pour buñ ko joxee yëfi yi ko yëf yaa ngoog pour déroulé ko du du du nekk du nekk benn problème ci moom. Mm-hmm. seen dëkkandoo ko waa yeewi nag euh, dana sax dàkk wala. Euh, mën naa mën naa xajami waaw loolu nag xam nga xam nga xam nga li ma a wax sànq ci njëlbeen gi rek mooy parti moom buñ ko dee sos li tax ñu koy sos mooy conquête ak gestion du pouvoir Yewwi ñoom déjà am nañu ay candidats Ousmane Sonko nee na candidat la Malick Gakou nee na candidat la waa léegi ñun te ñun bokkuñu Yewwi ñun dañoo àndoon ak ñoom ci entente électorale mais ñun dañoo am candidat am programme. boo xam ne dañ koy proposer Sénégalais loolu c' est différent de ce que Yewwi veut ñun dañoo am programme boo xam ne c' est porté par le PDS coalition wàllu Sénégal wër ko ci autour du candidat Karim Wade moo tax Yewwi moom jàpp nañ ni entente électorale la woon pour législative yi la preuve ku ci nekk ak sa groupe parlementaire bu ñu dee waxtaan waaye yeew yi dañuy génn dem waxtaani ci seen biir waa wala yi dañuy génn dem waxtaani ci seen biir kon jàpp naa ne entente électorale ba fa mu waroon a yem yem na fa ah, jeex na fa mu waroon a yem yem na fa le 31 juillet ndax ku ah ci nekk am nga sa groupe parlementaire léegi nag dañu jëm ci beneen bu kenn waxati intercoalition yeewi wàllu jeex na non xam nga loolu Euh, terme la bu ñu indi nii rek mais boo duggee biir assemblée nationale ñeme woo faa wax intercoalition yeewi wàllu. Hmm. ndax dangay gis groupe parlementaire yeewi Birame Souleye Diop nekk président bi nga gis groupe parlementaire liberté et changement. Euh, Lamine Thiam nekk candidat bi. waaw jërëjëf euh, Ousmane Thiam député wàllu Sénégal bokk ci PDS jëf Georges jërëjëf soxna Naata yendu ak jàmm. jërëjëf Babacar Fall de Déthié Diop ak seen gan di leen ñaanal kenn dal ak jàmm ak programme rajo Futur Média ñu dellu si ci ñaareelu pàcc info matin jot na bu leen fàtte ci kanam. yi